mbokki internet free info Nous avons une opinion départementale régionale et opinion nationale C'est euh, le mouvement pour l'émergence du département de Kungel euh, MEDK taxawu ndaw un mouvement de soutien politique à l'endroit du président de la République son excellence Macky Sall euh, à sa tête notre cher coordinateur Babou Khadidien. Nous avons le comité exécutif du mouvement pour l'émergence du département de Kungel. ñëw tey pour waxtaan ak mbokki département bu Koungheul mbokki région bu Kaffrine mais rawatina waa Sénégal wërngal këpp jëm ci li nga xam ne nii moom moom mooy taxawaayu mouvement bi pour jàppale njiitu réew mi président Macky Sall suñu waxee jàppale njiitu réew mi président Macky Sall mooy jàppale. leader yi nga xamné ni ñom ñoko nekkal département bu Kungal PDG li ta waralon point de presse bi moy dañuy def taxaw ci mouvement pour l'émergence du département de Koungheul bi nga c'est un mouvement de soutien politique à l'endroit du président de la République son excellence Macky Sall suñu waxé président Macky Sall mooy taxawaayu leader yi nga xamné ni ñom ñoo nekk ci département bu Koungheul yop parce mouvement bi dafa taxaw pour gunge président Macky Sall ci massification mais tamit ñew pour euh, wax ci li nga xamné mom moy ay réalisation ci département bu Koungheul na ci région biñu ñu muy région bu Kaffrine mouvement bi dafa am fu mu joggé biñ ko taxawalé le 2 avril 2022 mouvement bi dafa amone ay points yo xamné ci la taxawone pour liggéey ci euh moy bi ñu paree ci waxtaan ak ndaw ñi ci orientation yi nga xam ne mouvement bi taxaw na pour gunge leen ko ci wàllu xëy ci wàllu emploi ci wàllu formation ak ci wàllu jàppale ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbay mi parce que ñun dañoo nekk ci zone boo xam ne zone mbay ak càmm mu nekk zone agro-sylvo-pastorale mais bi ñu jógee ci loolu dafa am loo xam ne nii moom moo dëgg dëgmaloon ci wàllu jongante yi ñu jëm mu nekk le 31 juillet te ku wax jongante wax processus moy tëralin yi nga xamné ni mom le président ba le mom le direction nationale des élections tëral mu nek li nga xamné mom moy processus électoral processus bi nak fi mu commencé woon moy les candidats bal, les coalitions bala parti politique ñu dem ci li nga xamné ni mom moy parrainage parrainage ñun ci fi ñu féetee muy coalition Benno Bokk Yakar. Nous avons ci le comité exécutif et son coordonnateur M. Babou Khadidien Nous avons collecté 2482 parrains Nous avons le délégué régional Le président Max Saltan, le ministre Abdoulaye Seydou Sow. def participation au nom du nom du mouvement mais nous aussi ñun ci li nga xamné ni mom leen muy liñ tuddé investiture aussi mouvement pour l'émergence du département de Congo. Nous avons un président né ko ñun suñ engagement ak suñ détermination ak jappalé la képp ko ni investir nga ko ci département bi dinañ la dinañ ko parce que gungé ko moy jappalé la gungé ko moy jappalé suñu bop lool motax bi yalla défé président Macky Sall l'honorable conseil économique social et environnemental par ailleurs le maire de Fass mais bi nga xam ne ci politique qui dootu ko vu l'expérience bi mu am ci les chambres de la république le mouvement aussi am taxawaay pour Gungeko. parce que tey gis le candidat le plus expérimenté de la région voire même le Sénégal ci ce, aussi ñu tànnal l'honorable député Fantassal, qui est une vraie lionne qui est une vraie représentante parce que gis 5 cinq ans nous mu def à l'hémicycle nous mu défendre l'intérêt du département de Koungheul nous mu doon jëlee jafe-jafe département bi di ko à l'hémicycle ñu gis ne tànneef bi nga xam ne ñun moo nekkoon suñu yéene président boobu la ñu tànnal tamit le mouvement pour l'émergence du département de Koungheul taxaw ne day gunge candidat yi ci li mën ak ci lu mënul ci le moyen ci wàllu physique ci wàllu matériel ci wàllu détermination ci wàllu engagement pour que liste bi le gagner ci département bu Kungal 21 jours campagne le mouvement s'est organisé tous les responsables du mouvement ci li nga les différentes collectivités territoriales yi nek ci département bi ñëpp basé wu sur Kungel. mais ñu am aussi ay cellules yoo xam ne ñoo nekk au niveau des différentes commune yoo xam ne ñu ngi liggéey di def ay visites de proximité di dem di seeti ñi nga xam ne c'est des frustrés pour waxtaanak ñoom pour ñu mën a adhérer li nga xam ne nii moom mooy mouvement bi mais jàpp également ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu élection yi taxawaay bi mooy ñun li nga xam ne nii moom mooy liggéey bi ci wàllu boobu noonu jot neen bokk ci li nga xam ne ni moom mooy taxawal bi parce que l'élection, le processus si nous investir ba pare ba dem ci li campagne campagne électorale nous devons faire un comité électoral départemental bi nga à sa tête les investissements à travers le coordonnateur euh, du comité électoral l'honorable Elage Mohamedien, la vice coordinatrice l'honorable député Fantassal. Nous, nous nous bootu ci comité bobnon, parce que comité bi habilité pour pour organiser pour coordonner les pleurs qui ont ni dafa jëm ci élection Nous, le mouvement à travers notre coordinateur Babou Khadidien on s'est organisé and avec le comité dem sur les différentes communes du département dem sur les différents bureaux de vote témoins yi département pour gonger les candidats pour ànd le comité battre campagne battre campagne bi moy participation bi su ñu au niveau de chaque bureau de vote témoin suñuy élément dina descendre dugg ci kër yi di waxtaan ak askan bi di leen sensibiliser di leen wax na leen luñu bëgg moo ñu ba taux de participation ci élection yi jëm mu nekk taux bo xamné ni nii dana yok voir 80 pour cent mais taux biñu biñu fixé objectif yi ñu fixé pour que le département de Koungheul am mouvement bëgg ci participer dox ci lu bari moy ñu atteindre les 90 voire 95% des résultats de vote. le mouvement li nga comme rôle bal li nga xamné comme participation mais rôle bi d'abord moy ñun on s'est engagé corps et âme taxaw ci li nga xamné ni tay mom mo nek euh suñu coordinateur ñu organiser pour gungé li nga xamné mom moy candidat yi suñu rôle moy participer à ci plan moy plan stratégique participer ci plan massification yi participer ci li nga xamné ni la jeunesse d'une manière générale et les femmes ñu adhérer cette liste té lool yakarna né jouer joué ci rôle éminent parce que ci le mouvement à travers le coordonnateur avec le comité électoral sillonné tout le département de Koungheul presque département bi pour def ay visites de proximité à ce que nit ñi pour pour voter massivement et faire voter la liste Benno Bokk yakar ci côté participation li à travers notre coordinateur, il s'est déployé six véhicules nous véhicule auto, le mettre à la disposition du coordonnateur pour le comité électoral départemental mais également jël ay moyens des moyens financiers participer symboliquement au niveau des comités électoraux communaux. Euh, communal pour que commune bu mais à travers nos cellules de communication à travers les visites de proximité il s'est engagé à un montant de 1 million de nos francs pour que nous puissions faire ces visites de proximité à travers carburant à travers motivation Et ñi nga que c'est de diminuer. Et ñu avons di la liste bi loxo jotu pour nous nous adhérer nous puissions appeler la liste pour nous gagner au sein du département. Quoi wax ku wax état ku président de la république est stratégique parce que nous disons à travers le plan Sénégal à travers les organisations yi nga le président Tahawal, PUMA Prodesk, euh, PUDC du moins ngeen baal ma loolu yëpp président am na ay naat naal yu bëri yoo xam pour le monde rural parce que ñun jamono bi ñu toll conclusion yo tirer ay conclusions yoo xam c'est des conclusions positives ci réalisation président Macky Sall à travers l'électricité à travers euh, le euh, l'action sociale d'appeler les familles diminuées mais à travers les routes nous avons envisagé pour def ko ci ñetti weer yi nga xam ni bien vrai population a un droit pour nous voir euh, le président de la république balé état bi na leen mais loolu qui na le président Maxal, qui mu ngi ciy liggéey bu am solo loolu nous buñu démé ñom une ñu wax ni ñun ñu invité à ce que nous voter et faire voter la liste Benno Bokk Dakar pour ñu am une résultat ou bien des résultats satisfaisants ci département bu Koungheul pour ëllëg lépp loo xam ne dañ koy joxe ci Sénégal Bal dañ koy def kenn du ci ëppale le département de Koungheul te loolu yaakaar naa ne président Macky Sall dina si jot te leader yi nga xam ñu ci département bi ñu ngi travailler pour que population bu Koungheul ñu génn si jafe-jafe yi nga xam ne nii moom leen nekk. waaw de loolu ñu ngi dégg sax ñu bëri daan wax naan période campagne le motax mais ñun ñop japp nañ ne projet bi nga xamné ni mom le président Macky Sall signé ak li nga xamné moy état du Sénégal sax lay wax moy route transgambienne bi nga xamné ni mom moy joggé Ndiobène ba Ranérou yaakaar naa ne loolu moo campagne électorale té lolu ñun ñi nga xamné ni ñom ñoo nek les acteurs ñi ci wara liggé ci walu yoon.

Euh, askanu département bu Koungheul yëpp di sant Yalla bu baax comme ni nga ko euh, le euh, PDG ñu ngi and ak mouvement MDK e tous les responsables les coordinateurs communaux aussi bureau exécutif bi ak comité exécutif yi ñëpp ñu ngi and vraiment taxaw tém aussi li nga xam moy législatif 2022 yi comme ni nga ko laajee taxawaayu MEDK vraiment a naa avant Euh, fi ñu tollu ni lañ amone taxaway parce que buñu fateliko vraiment processus la amé deka taxawna temu ba lepp lo xamni ni information bu population wara jot ci li nga xamni moy choix président Macky Sall ñu dugg ci askan bi leralal len ko avant nous avons euh, communiqué avec fekk population nous avons euh, information bu baax xam nañ les deux candidats Mohamed et ak Nous Sall continué à ci loolu continuer pré campagne parce que nous avons fait affaire bi cinq niveaux la bi ci appuyer la population ci ses besoins, besoins euh, moi premier niveau deuxième niveau bi mooy def pré campagne troisième niveau bi mooy dem nañu campagne mooy ànd nañ ko ak les deux candidats euh, ak tous les membres du MEDK ñu am ci taxawaay bu am solo boo xam ni kenn du ko laam-laamee ñëpp taxaw dëkk bu nu yegg dañuy taxaw euh, def euh, kii mobilisation bu am solo loolu nag mën naa wax ne depuis mercredi pare nañu les huit communes pare nañu seen i campagne tey ni ki démb di jeudi ñu tambali dugg ci communes yi def euh, sensibilisation def porte à porte def visite de proximité loolu vraiment aussi jëm seeti ñi nga xam ne ni ay mécontents leen waxtaan ak ñoom tey mun wax ne ci euh, troisième niveau bi foofu le ñu toll quatrième niveau bi moy

moyenne bi ñu njëkk a débloqué mooy jël suñu moyenne jël luy ay auto dugg ci département bi def pré campagne lolu yaakaar naa ne waruñ ko faté lolu bi mu aussi ñu jëlaat suñu moyenne dimbale comité électoral départemental bi ci quatre véhicules yo xam ñom dañ ko tek seen disposition tournée bi nga xam mom la MODK e di def pour sillonner le département pour sensibiliser les populations pour expliquer leen naka la voter, voté wala leen bulletin bi lolu MODK e débloqué na six véhicules boo xamante moom lañ teg pour que ñu dugg ci biir département bi yëpp ci ñaari fan ci ñetti fan ba jouru élection bi ba ba ñu voté ba pare pour que résultat yi ñu mën a am taux bi ñuy xaar. vraiment di wax na ñun affaire bi maanaam engagement bi ñu si jël euh, ñëpp département bi ñëpp ñëpp la leer ku ne xam na ne EMEDK ci élection yi moom mooy moom mooy soldaaru élection bii nii moom mooy armée wu élection bii nii. waaw euh, comme ni nga ko waxee euh, mouvement MDK ci commune bu Missirah Wadène foofu am nañ fa présence bu am solo yaakaar naa ne ay suñu ay frères lañ woon ñoo xamante ne ni dafa am ñu damoon influence leen ba ñoom ñu taxaw pour jéem a am yu ñuy am lu ñuy ñaxtu yooyu mais dem nañu foofu waxtaan nañu ak ñoom ba expliquer nañ ñoom ñëpp comprendre nañ mun naa wax ne daal. tey ci département bi ñëpp comprendre nañu lan mooy njëriñal élection législative yi ñëpp comprendre nañu ne sunu sunu njëriñ mooy ñu fexe ba li président Macky la teg fii ci département bi ñu votel ko à 98 pour cent loolu daal vraiment euh, ñëpp am nañu compréhension boobu noonu. mooy di gën a ñaaxaat di gën a ñaaxaat rek di wax ne yëf yi ba 18 heures dimanche 18 heures soreetul ginnaaw suba la nañu taxaw temm bu ñu xëf. waaw am taxawaay bu dëgër boo xam ne ni bureau de vote yëpp ñu dem taxaw suñuy membre ñu dem taxaw sécuriser bureau de vote yi aussi am ñoo xam dañuy wàcc ci kër yi parce que dañuy fas yéene jël ay oto yoo xam ne dañuy dugg ci kër yi ñi nga xam ne nii seen tànk mayu leen pour ñu mën a dox ñu fexe ba génne leen ñoom ñëpp ñu mën a dem vote ji si jàmm ak salaam di wax rek ne ci ñaaxaate boobu laay euh, gën a taxaw di wax rek ne ñëpp nañu taxaw temm ba nga xamante ne nii Euh, euh, taux bi nga xam ne parce que ñun dañu bëgg taux de participation bi moom lañu bëgg mu élevé bëgguñu kenn toog war a voté te doo dem voté ji dañoo bëgg ñëpp dem voté ji aussi bu ñu voté ñu votal benn boo ko yaakaar yaakaar naa loolu bu ñu ko defee soir euh, le soir du 31 juillet dinañu gis résultat yi naka lay tëddee bu loolu weesu ñu ngi sant ñëpp di wax ne cant sax teel na parce que ñu ngi ci waar wi xanaa lii dañ noonu nañ def point rek par rapport ak euh, fi ñu tàmbalee ba fu ñu egsi nii balaa ñu egsi si euh, vote bi loolu moo waraloon ñu nañ def point de presse ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci boobu